match bi c'était un flop carrément. Mhm. presque da doon perte balle et puis raté ay occasion yoo xamante ni ay balle de bii la woon fii bii nii raté na occasion mais finalement dugal na est-ce que Aliou Cissé a raison de de le maintenir. au au détriment de de de Jackson. di rappeler rek que que ne joue pas beaucoup dans son club. Mhm. mais damay fàttali rek toujours la sama wax dañuy bonifié wu au fil des matchs. Euh, plus ils jouent plus ils retrouvent leur leur leur leur sensation ñi nga xam ne mm-hmm. amuñu amuñu temps de jeu bu doy donc je pense que euh, il a inscrit un, un but il n'a pas fait un super super super match il a eu la chance d'être présent mm si si si si occasion bi et de marquer donc je pense qu'on ne peut pas lui demander autre man fa ma bëgg ñu ñëwaat tey mooy si match match tey bi yaa ngi koy wax sànq derby la euh, Guinée du du équipe bu ndaw du du bojo bojo quoi comme ni ko xale yi di waxee lan mooy seen force ñoom non xam nga ils ont changé euh, beaucoup de choses. Mhm. dégg nga entraîneur bi Kaba Kaba Diawara di ko di ko wax. Euh, ils ont ils ont une nouvelle génération ils ont rectifié euh, ñoom li mu wax entraîneur blanc ah par rapport ak seen échec yi passé donc une ils ont une équipe joueuse. ils mhm. ont toujours eu une équipe joueuse. maintenant euh, seen profil ça ça dafay dafay dafay méngóog li Sénégalais soxla seen profil ils sont pas trop physiques. maintenant ils vont avoir peut-être la chance d'avoir ñoom Guirassy yi ñu ñu départ match bi. Mm-hmm. mais tout au plus Sénégal euh, Sénégal Guinée coow yi rek moo fi nekk. Mm. non coow yi rek en CAN ils ne nous ont jamais battus.